jërëjëf dama bëggoon li jiitu moom mooy euh, jaale ñi fi ñàkk seen bakkan président def na ko euh, am na it ñoo xam ni di ñaan ñi fi jógee euh, yàlla xaral na àjjana Sénégal réew mu ndaw lañu doomu réew mi doomu réew mi ñëpp lañ soxla ak nag foo mënti bokk mën nañu bañ a bokk gis-gis waaye yàq li ñëpp bokk askan wi defe naa ni démocratie nanguwu ko xel am na nañ ñaan yàlla mu bañ fi amati ci gouvernement bi dinañu jël suñuy matukaay pour fexe ba loolu bañ amati incha allah di masawu aussi ñi feebar ak ñi ci gaañoo euh, maa ngi wax ak ministre de l'intérieur léegi xam naa ni fan yi di ñëw dina seeti ñi gaañu ñëpp ñoo xam ci force de l'ordre lañ nekk wala muy ku doon manifester wala sax simple citoyen boo xam ni danga doon dox rek ba tombé ci lu mel nii ndax ku dal la ci. ñoo ñëpp njabootu Sénégal lañu ñoo ñëpp njabootu président Macky Sall lañu donc dina leen seeti masawu leen xool ni ñu mën a taxawoo maintenant infrastructure bi infrastructure bu mucc ayib président mooy Sénégal am système de transport boo xam ni bokk na ci gën moderne ci adduna bi en tout cas Afrique kenn amu ko fi muy bus yoo xam ne day daw ci courant bus yoo xam ne du saxaar du la du andi benn poussière du nekk ñu benn lu bëri ci circulation Dakar ndax xam nañ ni Dakar dafa xat ndax noonu la Dakar bindoo presqu'île la Dakar dafa xat parce que lu ëpp ci activité ci biir plateau bi wala booy dem plateau loolu ñu am système de transport bi lu ci baaxul kon ni ñu ko defee ci TER bi incha allah BRT bi dinañu fexe mu yegg ci nu mu gën a gaawee gis nañ ni nag station yëpp yàqu na toj nañ ko lu ci ëpp matériel bi ci jotoon def yóbbu nañ ci lu bari waaye koo xam ni dangay liggéeyal état doo xaddi doo tàyyi da ngay rek sëgg jàpp ci liggéey bi di def li nga xam ni moom moo la war incha allah moo tax ma wax ministre des infrastructures na ci ñëwaat léegi li yàqu yëpp na ko xayma ci nu mu gën a gaawee ba nga xam ni semaine bii dinañu jox rapport bu boobaa dinaa mën a waxtaan ak président de la république ci rapport bi xamal ko ni lii teg nañ ci sunu bët experts yi wax nañ ñu nangama ci yàqu dañ ko jéem a defaraat ndax mënuñu ko bàyyee nii. fexe yeggale liggéey bi wax naag entreprise bi léegi nee nañ ma ñoom dinañu liggéey léegi vingt quatre heures sur vingt quatre heures ndax dëgg la am na lu ci yàqu mais li gouvernement bi def moom mooy fexe ba ci nu mu gën a gaawee ba ci nu mu gën a gaawee ñu mën a euh, jot euh, kii bi BRT bi ci délai bi ñu ko bëggoon donc kooku euh, duñu duñ ci def concession du ma ci def concession donc dinañ fexe lever contrainte yëpp maintenant nit ki li ngay def mooy la nga war a def nga def ko jox ko àqam li ci des nag bàyyi ko ci loxo yàlla mais en tout cas tous les moyens vont être mis à disposition pour que ñu mën a terminer BRT bi ba décembre bi ñu waxoon décembre boobu ñu mën ko inaugurer mettre ko à la disposition des citoyens leneen li ci des ci wàllu sécurité la euh, ministère de l'intérieur mi ngi waxtaan ak ministère des infrastructures ni mu amee ci BRT bi mu am ñoo xam ni dañ leen di détaché ñuy toppatoo sécurité BRT bi dinañ muy s topkoon TER bi dinañ ko def ci BRT bi loolu ministère de l'intérieur moo ci gën a mën a àddu dina ci ñëwaat léegi ba nga xam ni dinañu jël sunuy disposition pour sécuriser ko ci trajet bi yëpp feu yëpp gis ngeen ni yàqu na donc est-ce que dañ koy remplacer tout de suite ou bien dañ ci defay ay agent de police loolu ministère de l'intérieur moom moo ci mën a moo ci mën a àddu mais li mu mën a wax daal moom mooy dinañ fexe ba BRT bi délé bi nga xam ni moom la ko président soxla ñu mën ko def mettre ko à la disposition euh, des sénégalais yenn yi nag mooy ñaawlu yi nga xam ne am na fi ndax lu ñëpp bokk moom boo ko yàqee ñi koy def rek da nga ciy bokk cotiser. da gën a yàlla noonu lay demee réew yëpp noonu lay demee moo tax yàqloo moom amul solo euh, baaxul rawatina it nga yàq loo xamante ni kenn na ko ñàq moomoo ko. loolu yëpp luy wàññi réew mi la donc euh, loolu yëpp lu ñu war a seet la ndax euh, démocratie moom ni muy doxee rek mooy ci respect wu ay règles euh, peuple bi le peuple est souverain moom day am ay waxtu yoo xam ni waxtu boobu lañ koy interpeller muy ay élection bu élection yi jotee ñoom ñu tànn ku leen neex li ci des nag moom mooy marche état kooku responsabilité ñi yor état bi la ñi yor gouvernement bi bien sur dans le cadre d'un dialogue ouvert président jógul ci di woote dialogue jógul ci di woote waxtaan ku nekk sujet bi nga xam ne moom nga bëgguñu ñu waxtaanee boo ñëwee mën nañ ko fa waxtaanee bu ñu paree dajale lépp jox ko président de la République moom mi nga xam ni moom lañu ñu dénk baatu réew mi bu boobaa moo mën ci jël ay décision ñu continuer liggéey bi.